rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki téléspectateur yu des stv mbokki origine fm 88.4 dellusiwaat nañu yéen seen jotaay yu daara ji ñu tuddee tafsirul quran seen mbokk daara Abdoulaye Guèye di yen ko présenté di leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu xaq di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala mu def ñu dëgg-dëgg jullit ay dellu rek di ko ñaan moom suñu borom subhaanahu wa mu defal ñu xéewalu saa yi ñu koy wujj yàlla nañu yóbbaale suñu imaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni ñu ngi ci suratul isra yi yàlla dogal suñu jotaayu tafsir bi ñu mujj am ñu demoon ak yéen ba fukkeelu aaya ak ñaar maanaam amoon nañ ci saar bi douze versets te ñu war a jël fukkeelu aaya ak ñett muy treizième verset ci seen saar bi di suratul isra xaytu yaqulu almawla subhanahu wa taala wa kulla insanin alzamnahu tairahu fi unuqih wa nuxriju lahu yàlla waxoon nañu ni guddeeg bëccëg moom faram fàcce na ko ba mu leer gis na nag guddeeg bëccëg yooyu yàlla wax ni day wuutante kéemtaan la nag yenn saa yi guddi gi ñëw ma far kéemtaanu guddi gi indi leen leer yenn saa yi leer gi dem ma indi leen guddi nee yooyu yëpp nag dama ko def ngir ngeen sàkku ci ci wërsëg waaye ngeen xame ci at yi amee ci weer yi xame ci seen calcul yi ngeen di calculer si la gars yi di xool pour programmer seen programme yi ñuy def yëpp waaye yooyu yëpp ma faram fàcce ko waaye mbokk yi ngir jaamu ci yàlla it la nag gis nga bëccëg yooyu ngir jaamu yàlla da cee bokk lu tax ndax nee na nit ku ne wa kulla insaani nit ku mu alzamnaahu ràng nañ ko taa'irahu téere jëfam fi unuqihi ci loosam mbokki jullit yi ndeysaan am na loo xam ne dama wax ni ku ko xool rek war a yéemu ci yàlla muy maxtuma yi ngeq tabarakallahu njabootu moom Serigne Touba gi ñu ngi koy takk loolu daf ñu war a inna fi dalika la ibra loolu dañ ci war a jàngat kenn ku ne maxtuuma yi dafa feeñ de waaye ku ne takk nga maxtuuma moo xamante ni du lu du lu bët di tege waaye yaa ngi ak moom loo jëf nag ci lañ la koy dugal loo jëf dañ la ko ci dugalal ba yowmal qiyam kon mag ñi lépp lu ñu doon def rek am nañ jàngat bu ñu bëgg nit ñi jàngat ko ca daaw ñu def nii rek di di déedéet loo ci gis rek am na lu ñu ci jàng saa yoo takkee ca sa maxtuuma moom wala nga gis jëmm ju takk maxtuuma sa xel na nekk ci wa kulla shay'in alzamnahu ta'iru wa kulla insani alzamnahu ta'iru fi unuqi xamal ni kat ndeysaan moom ni muy amee li muy am du ko dugal ca biir maxtuuma muy lu solo nee na gis nga doon la kenn ko ne tekki maxtuuma mu gisul booba nag soo jëfee sa jëf ju baax boo jëfee dal la ci sol fii unuqihi ñu ngi ko gàll ci saw loos ngay dox ak moom saa su ne ndeysaan da ngay ñëw rek ba yowmal qiyaameen mu ni bu yowmal qiyaameen wa nuxriju lahu yowmal qiyaamati dañ ko koy génneel yowmal qiyaam la ci nekk yépp def ko kitaaban mu tàllalu sa loola nga takkoon muy sa jëf ya nga doon jëf dañ mujj doon tàllalu doon benn téere yalqaahu mansuur boo xam ne da nga koy gis nag mu tasaaru leer nañ ci yow amatul dara lu ci lënd lépp leer ngay xool xam ni loo jëf loo jëful yépp mu ngi fii yàlla nee na man maa koy defal loolu dara ko ci ëpp nag lépp leer waaw makshufan laa yamliku ixfaahu aw tajaalu doo am loo ci mën a ndëbb doo am loo ci mën a làq ndax téere bu leer naññ la loolu day am yowmal qiyam téere bu leer naññ la bu dina la dal di ko am borom bi subhanahu wa taala wax loom solo la mu ni su la joxee sa téere boobu lépp leer ci ñu détaillé la ci moindre détail yi yi gën a sew ya nga gisul ya nga foogul woon sax nit ñu mentionné ko ci téere bi su paree dañ naan la iqra kitaabak sëñ bi ñu naan ñun la jàngal sa téere sa téere jëfa ngoog loo jëf ci lu baax mu ngi ci loo jëf ci safaan mu ngi ci loo defaloo nit ci lu baax mu ngi ci loo defoo nit ci lu bon it mu ngi ci bis ba nga toogee nit yor palaasam di liggéey nga ne ah place bii dox dëgg yàlla ci mën la gën a jekk ki ñaan jàpp la wa min charri xaasidin isa xasad nga dem cëpp sëriñ mu jox la mbir ñu ne lii bu soobee yàlla boo demee ba ca armeel ya nga gas wala boo demee ba ca selebe yoon ba wala boo demee ba ca géej gi boo demee ba romb kuy dem nga naawtal ko ca def ko xel ma dina dem bu deewul dina dof ah, nga gis ko sa téere jëf ñu la lii da yaa ko waxoon jigéen ji sëy nga xool ko mu nekk ci sëyam nga ni kii kat këram ji man gënuma cee yee dama ko war a am naa fexe nag bu ma ci duggee man du ma fa toogandoog moom naa fexe bu mu génn naw ko xel ma dem lu ko mën a dal mu faatu lu ko mën a dal nga jàpp ni loolu ndam la ah bu yomal yi nga xam ni dañ ko gis ci sa téere jëf yow mi liggéey noonu yow mi nga xamante ni it loo man di def rek liggéey boo mën a def ak yëngu boo mën a yëngu ba gis ni nit moo la ca tee avancé ba nga def ko pexe loolu day am yowmal qiyam yow mi nga xamante ni daan nga def lu yàlla daan tere yowmal qiyam mu feeñ comme it ki daan def lu baax it noonu la koy gisee ah gis nga de bis bii de am na bis nga romb nag nit ba nga ko rombeeg coonam nga jël loo ko dimbalee am na bis kenn nga gis ñuy tabax jàkk nga def ca am na bis nga gis ay jullit yoo xamante ni ñu ngi ceeni projet yu am solo ci lislaam nga jàppale gis nga ndaw lu jàngoon na ba pare am problème ay moyens yu ma mën a déposer ay CVM nga jël alal jox ko pour fu nekk nga mën fa yóbbu déposer loolu moo la jural njëriñ li am na bis nga gis kër gu sonn am problème mu dépense nga xëy benn bis bàyyi ba guddi ba ñëpp tëdd nga wàcce fa saaku Dieng wàcc fa dëw wàcc fa la nga fa wàcc yëpp ci ravitaillement bu complet dem te kenn yëgul nga xool mun ñun la mu ngi nii mentionné nañ ko sa jëf am na bis weeru koor jot weer wa yëpp daal seetlu na ni chaque jour am na ñoo daan jox ndogu oh, mbokk yi koor gaa ngi jege si waat maa ngi leen di fàttali li ma leen doon fàttali waat daaw mooy maidatul rahman bu leen ko fàttee mbokk yi bu ñu fàttee ma maidatul rahman taabalu borom bi kenn ku ne na tolloo nga ci defee kenn ko ne nanga nga tollool ngay defee ci taabalu suñu borom subhaanahu wa boo gisee ni benn nit nga man di jox boo defal ci maidatu rahman muy taabalu borom bi def jox ko ndogu def ko mën nga ñaar def ko bu dee mën nga lal koñ ba koñ def ko bu dee mën nga ñëw ci jàkka comme ni nga koy gisee ca makka ak yeneen i béréb ñëw rek tàllal tappi bi ba mu tàllal lu ñu teg ci xéewal tudde ko maidatu rahman mbokk yi bu ko kenn xeet ñun ñëpp nañ ko def kenn ku ne selon ses moyens na nga ko def la répétition est pédagogique daaw waxoon naa leen ko dama ko répété waat parce que damay bañ ñu fàtte ko damay bañ ñu xeeb ko bu kenn ni defoon naa ko daaw duma ko defaat ren ndax añoon nga daaw te parce que nga yéene añaat ren mu ni ko lépp da cay nekk ñu <clears throat> ne la iqra jàngal kitaab ka sa téere kenn du la ko jàngal tey kafaa doy nga sëkk bi nafsika ci sa bopp al yow ma tey alayka xasiban yow doy nga ci mën a regle sa bopp ndax xam nga sa bopp kafa bi nafsika yowma alayka xasiban ko yow mën nga regle sa bopp parce que yow xam nga sa bopp mën nga xam nga sa bopp kon régleel sa bopp kafa bi nafsika yowma alayka xasiban moom kenn du la lijjanti kenn du la régler yow yaay régler sa bopp ndax yow yaa xam sa bopp kafa bi yow ma alayka xasiban mbokk yi lii leer na li la suñu borom wax nag ni kon bu yowmal qiyaam mi jarul coow kenn ku ne di nga mën a régler sa bopp say mbir mu waxaat nag lu am solo mu ne ma ne man ihtada ku jubal mooy la ma waxoon rek fa innama di li si defaloo ko kenn de sa bopp nga ko defal bu ko ndamoo bu ko tiitaroo bu ko ngand ngandloo bu ko rëy rëyloo bul jàpp ni yow kat jaamukat yàlla bu mag nga loolu sa bopp nga ko defal yow lay jariñ li nafsi ngir sa bopp la na leer mu ne ma man dal la ah ku sàggan ba sànku it ah fa innama yadillu alayha boppam la ko def di nit ñi di jub yow nga tànn jubati di nga ci xam dara bis bu iqra kitaabaka ñëwee nga am problème mbokk yi bu année scolaire jotee ñu ni ñii kat ñu ngi def terminal ci misaal comme ngay moom bag bi leen gën a tiital mooy bag ba mooy waxee leen ko foofu ñu dégg ko ñii di jàng yow jàngoo nit ñi di góor góorgóorlu yow góorgóorluwoo saa yu examen jotee mu leer bu résultat yi génnee bu ñu la joxee sa relevé ni la xoolal ngir mi kat sëñ bi waaw man nu ma def ba échoué def naa la déet iqra kitaab ak xoolal rek sa kii baa ngoog laajoon nga sa relevé xoolal note yi nga am di xam lu la tax taxaw lu tax doom demoo xoolal sa bopp fàttalikul ba ngay ne ca classe ba yam note nga doon am xoolal sa bopp soo xoolee rek di nga xam lan moo tax doxoo kon nag ku jàng ci année scolaire bi sa bopp ku jàngul sa bopp laay tooñe gars yi nii ah ñu si ñaan ñaanu examen yi man la ah di laaj xale bi ñaata la jël compo baax na ci de kon lañ di rek nga ñaanal ko di nga di nga mujj a mel ni man de foo toll ñaanal kii xamul dara fekk ni du yow ki ngay ñaanal moo neexul a jagal moo neexul a jagal parce que nag ñax ni ñaan yi day dolli rek waaye ah bu làmb de boo boo yóbbaalewul dara ñaan dong jàng nit ñi di jàng jàngoo ah fas wu raw. mbër mu dul daan xale bu nanguwul a jàng sëriñ bu ci yàgg dugg di nga yàgg am defet de di nga yàgg defet kon yàlla nee na ku ku jub sa bopp ma ni mbokk yi ku jàng sa bopp waaye wa man dalla fa innama yadillu alayha bu nit ñi di jàng nga bañ a jàngit saa yi examen jotee nga xam ni sa bopp nga ko def wala taziru kenn du yenu waziratun wisra uxra kenn du yenul kenn diis diisam kenn du yenul kenn ay bàkkaaram mbokk yi yàlla nee na wala tadiru waadiratu misra uxra nee na bu yowmal qiyaama kenn ci nit ñi du yenu bàkkaaru moroomam kenn ku ne yaay yenu say bàkkaari bopp sa ndab lan la ko duyal nga yenu ànd ak moom yàlla nag nee waaye teewul wama kunna ñu nekk ñu dey muaddibiina di mbugal ay nit hatta nabaasa rasulan lu dul ni damaa yabal ndaw ndaw li ñëw wax leen ñu weddi kon li leen dal weddi nga ñu weddi ndaw suñu borom moo leen ko yóbbi waaye borom bi du tëb rek di mbugal nit ñi te defuñu dara la ne du ma def loolu duma ko def mën naa ko bu ma neexoon def ko kenn ñemew ma ni lu tax ngay def mais du ma tooñ moo tax bala maa mbugal dinaa yónnee ki ma yónnee dina doon Bachir yenn saa yenn saa yi mu doon Nadir dina la xupp dina la bégal lii de yàlla nee na soo ko defee di nga am lii ak lii waaye nee na boo defee lii dina ak mbugal bii ak bi mu leer sa bopp soo defee la neex nag di nga dajeeg la naqari nee naa leen ba tey ku dem ci na ju qada al xaj di fa fekk suñu maam cheikhul xadim naan man faala ma shaa laqiya ma saa ku def lu la neex di nga dajeeg loola naqari kon ku def lu baax sa bopp wolof tënk na ko sax ci benn wax ni baaxu waaye boppam waaye bon waay boppam nit li mu def ci lu baax ngir boppam la nee na it nit li mu def ci lu bon ngir boppam la kon nag mu ngoog kenn ku ne sa bopp ngay yenul say bàkkaar kenn du yenul kenn yàlla nag nee na du ma tooñ moo tax bala maa mbugal kenn damay yónni ndaw bu ma yónnee ndaw ku weddi ma duma la yàlla di wax nu muy defee lool nag mu ne bu ne bu ñu nammee an nuhlika alak xariyatan ab dëkk mbugal leen amar dañuy digal mutra fiha ñi ëpp xéewal ca dëkk ba dañu leen di wax ni leen les richard ñey borom àll yi dañ leen di digal jaarale ko ci suñu ndaw mu ñëw ni leen yàlla nee na ngeen topp ko yàlla nee na bu leen ko bokkaale jaare ko ci lisaanu anbiya yi ci làmmiñu yonent yi ñu lànk waaye mu ni bu ma defee loolu fa fasaqu fiiha ñu génne kàccoor génnu topp lànk ni du ñu dégg li leen yonent yi di wax ah nee na boobaa nag fa xaqa boobaa dina yaay alayha alqawl nee na boobaa kàddu gi de dina yey baax a baax a baax ci ñoom nee na dina yey lii may bëgg a teg ci seen kaw boobaa dina yey pour ma teg ko ci sama kàddu dina dëggu ci seen kaw mooy lan mbugal dina wàcc ndax dama ne woon su ma leen santee ngeen bañ ma mbugal leen nee na nee na bu boobaa fa dammar naaha ma màbb ko tadd miiran am màbb allahu akbar fii nag borom bi nag moom dafa diisal kàddu gi fa dammar naaha tadd miiran yàlla nee na dama leen di massacrer bu boobaa dëkk balaa ñëw rek massacre ngay déggee kàccoor yi saay-saay yenn saa yi rek ñu jël benn nit rek bëgg koo éliminer bu ñuy naan dañ naan waa ji kii effacé ko waaw dilkat yi yooyu kii effacé ko mooy rey ko rey bu dul am trace xam ni kenn du xam fu ñu ko fu ñu koy wëree moom da nga jékki-jékki di dégg nit ku ne moom daal dafa jékki-jékki disparaître effacé nañ ko fa dammarnaahaa tadmiiran yàlla nee na saa ko noonu laay def dama leen ko ma koy màbb bu mu leen yem nag. bu mu leen yéem su ma leen waxee loolu ni mën naa ko ndax wakam ahlakna min al quruni min baadi nuuxi ñaata ci ay xeet ñaata ci ay maas ñaata ci ay génération laa al ginnaaw nuux nuux sax duma ko tudd ndax sa sët àll nii moom ñëpp xam nañ ko waaye ñeneen i xeet yu fi jaar ak yeneeni i maas ginnaaw nuux jaar nañ fi def lu mel ni la ñee defoon ma def leen la ma def ña ma defoon ñële fa ina ottum rek yàlla nee na loolu def naa ko kon bu ma leen waxee ni lii dinaa ko def war nañ ko gëm mu ni wa kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi xabiran basira mbokk yi aay bii nag aay bu daw yaram la aay bu jara tiit la aay bu jara bàyyi xel la aay bu jara def taxaw seetlu suñu borom nee na moom day doy na sëkk ci borom bi mu mën a informer jaam yi mu dañ ko tey gisit seeni bàkkaar yi ñuy jëf yàlla nee na bàkkaar yi ñuy jëf moom moo koy gis wa kafaa doy na bi rabbiki sa borom bi zunubi yi ci bàkkaari jaamam yi xabiiran mu ji aji dañ kumpa ci loolu dina koy gis bu baax basiiran it dina ko xam tey it basiiran dina ko gis kon kenn mënul nëbbu yàlla waa sirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bi daati sudur suñu borom nee na jarul nëbbu jarul feeñal lépp a yem man ni ngay nëbboo ak ni ngay feeñale moo yem ci man ndax lépp laa gis loolu lépp laa gis man seen borom yàlla nag di wax nag léegi nag kenn ku ne seetal foo bëgg a tegu ndax nee daal ku baax sa bopp ku bon sa bopp mu ni man kaana ku namm na bëgg na ku yuriidu li mu nekki daal mooy dafa bëgg ala aajilata kër guy gaaw a jeex gii kër gu monde bu éphémère bi muy àdduna bi nga xamante ni lu gaaw la day ñëw waaye luy jàll la du lu fiy toog ba faw koo xam ne looloo la ñor ajjal naa lahu fiha ma nashaau ma indil la fi li nga bëgg yépp ma ma ma ma yàkkamti la ko kër gu gaaw gii nga soxla yàkkamti lool ma yàkkamti la li nga fi war a am yépp jox la ko jox la ko waaw jox la ko waaye nag loolu sax maa ngi koy defal maana shaaw ñu neex waaw ma jox ko la ma neex waaye li ma nuur yi du ca ma neex du képp ko bëgg àdduna rek yàlla jox la fi li nga bëgg yéppati mani du képp ku bëgg àdduna yàlla jox la ci àdduna li nga bëgg yëpp nee na déedéet waaw nee na képp ku àddunaa la ñor ma yàkkamte la li nga fi war a am jox la ko waaw looy ma neex nag ca ñama ca neex rek ñenn laa koy defal du ñëpp sax nag su ma jaal naa topp ñu def lahu ñeel ko moom mi nga xam ne àddunaa ko ñoroon ba àdduna la doon doxee fa amma man taxa wa athara alxayata dunia fa inna aljahima hiya almawa la yàlla mu ni kon su ma jaal naa topp ñu def lahu ñeel ko jahannama safara yaslaha mu cay jaaru moom mi nga xamante ni mu wàcc yoon wii mazmuumam madxuuran muy ku ñu toroxal doyedil ko ba pare dàq ko soril ko yërmande suñu borom subhanahu wa na loolu lañ koy defal mazmuuman dinañ ko ŋàññ yedd ko yedd bu metti metti ba pare madxuuran soril ko yërmande suñu borom subhanahu taala moom mi du ko mën a am nee na du ko am ñëpp toog ñu weer la toroxal dugal la safara waaw ne la ko mérité baadoo la nga sant borom sant la nga def loola neex moo la jural lii yàlla ne noonu laa koy mu ne nag waaye wa man araadal axira ku alaaxiraa ko ñor moom wa saalaha saayaha wax ji mu ne alaaxiraa ko ñor wax ji dafa dëppoog jëf ji muy jëf di jëf jëfinu ku alaaxira ñor wa huwa muminun fekki nit bi muy def lii imaan mu ngi ci moom moom may def li daal ku gëm yàlla la fa ulaayika gaa yooyu daal kaana saayuhum mashkura yàlla nee na de ñoom de seen jéego jéego yi suñu boroom gërëm la jéego yi suñu boroom subhanahu wa taala gërëm la allahu akbar fa ulaayika kaana saayuhum ñoom de yàlla sant na leen gërëm na leen ci seen jéego yooyu kon nekkite mbiri àllaaxira bi moom ay ay ay ay mbir la benn da ngay gëm allah da ngay gëm dangay ngay bëgg ki nga xam ne àllaaxira daf ko ñor lool yowmal qiyaam ak pay ba fa yàlla di fayee ak xéewal ya fa yàlla di joxe mu gëm loolu ba pare di dox doxinu ku ko gëm nag di ko waxe di julli di woor di jaamu yàlla di bàyyi lu bon noolu mooy dox doxinu ku gëm loolu waxu mu fekk ni ku am iimaan la nee yooyu dey kaana saayuhum mashkuran seen jéego day jéego yàlla gërëm la ndeysaan ñi nga xamante ni ñoo dajale yii di sellal di jëf-jëf ju baax am ngëm yàlla ñoom di seen jëf jëf ju yàlla gërëm la jëf gu yàlla di nangu la bu yowmal qiyaame yàlla de lii la wax ci ñi wax na ko nag fa amma man taxaa wa athara alxayata dunia fa inna aljahima hiya alma waaye wa amma man xaafa maqama rabbihi wa naha nafsa ani alhawa fa inna aljannata hiya almawa ci suratu naziat ku def lu baax am lu baax ku def safaan it gis safaan nee na ku bew àdduna rek ñor ko nee na safaraa ngi koy xaar nee nag ki nga xamante ni xalaat na ni yowmal qiyaam dina am ajjanaa nga fa safaraa nga fa lépp nga fa muy góorgóorlu moom it nee na yàlla dina ko jox xéewal ga mu ko war a jox yàlla nag wax lu am solo mu ni kullan ku mu ci ñii ki tegu ci yoon wu baax wi te àllaaxira ñor ko ak ki àdduna dong ñor ba boo waxee mu ne daanaka àllaaxira amul ku ci nag nu mit du dees na leen xéewalal dees na leen tàllalal wërsëg haulaay wa haulaay ñu bon ñi ak ñu baax ñi nag ñoom ñëpp dinañ leen defal loolu ci lan min ataai rabbika ci sa mayuk boroom maanaam yàlla ci mayam ak mbaaxam ak joxeem ñëpp lay jox ñépp àdduna ñorul yàlla dama ne bu ñoroon yàlla yéefar du fi naan guuxu ndox waaw bu yoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su ñoroon yàlla lu toll ni laafu yoo yéefar du fi naan guux ndox déedéet du ko fi naan mun kon ku def loolu nee na ñoom ñëpp laay jox nag jox bi moom ñoom ñëpp ki bëgg àdduna ak ki bëgg àllaaxira ñoom ñëpp daa leen jox kii naa ko jox kii nag ma may ko ci sama ngëneel ak sama mbaax man suñu boroom nee na dinaa fi jox ki gëm yàlla dinaa fi jox it ki weddi yàlla naa fi jox kii topp yàlla waaye dinaa fi jox kii weddi yàlla yooyu yëpp maa leen di jox man borom bi subhanahu wa taala ci sama mbaax ak sama may mu ne wa maa kaana ataau rabbika mahduran ndeysaan nee na mayuk suñu boroom gi dara du ko téye déedéet kenn mënu ko tënk waaw nit di may ba si ak nga téye ko ay nañ ko jàpp déedéet yàlla kenn mënu ko ci moom yàlla moom ni muy mayee du jeex waaw waaw te amul bu ko neexee ki gëma ak ki gëmul lay jox yow loolu sa yoon newu ci moom moo yor alalam moo yoruk mayam mooy may ku ko neex waaye nag bu yowmal xiyaam yi mu jëf jëfandikoo kenn ku ne ca na nga doon doxale ak moom ca la mu la mu ni loolu nañ ko xam mu ne undur xoolal kayfa faddal naa ni ma gëneele baaduhum ñenn ci ñoom ala baadin ci ñenn loolu nag yàlla nee na maa ko def nee na ndeysaan yamalewuma leen ci wërsëg yi waaye yamalewu ma leen ci jikko yi nee na nit ñi yemuñu ci wërsëg yi waaye yemuñu ci jikko yi waaw yàlla mooy séddale wërsëgam kii mu jalal ko ba mu ni gàññi kii mu raaseb jalam ba amul dara waaw yàlla la du keneen nee na maay def loolu kii baax lool kii wàccug mbaax moom safaanu nekk ci lu ko neex mooy lépp nag nammeelu yàlla la yàlla ku ne xam na la mu moom moom la lay jox te kenn mënu ci dara yàlla mooy séddale te buy séddale kenn du ko ni war ngaa jox kii lu bari war ngaa jox kii lu tuuti nee na man maay def loolu moo tax mun xoolal ni ma defee ngëneel baaduhum ñenn ci ñin ala ci ñi ci ñenn ba ci it jaamu yàlla da ngay gis koo xamante ni ndeyam day baax baayam day baax mu judd safaan gis koo xam ne ndeyam dafa doy waar baayam doy waar moom mu judd rek yor jikko yu baax a baax a baax nee na loolu maa ko def waaw mun nag waaye li am solo mooy àllaaxira yàlla nee na li lépp du li am solo de li am solo mooy alaaxira mu ni walal aaxiratu alaaxira nag baru darajaatin nee na moo gën a moo gën a rëy moo gën a kawe moo gën a màgg ay daraja nee na lii du dara par rapport ak la ma leen dencal yowmal qiyam waaw la ma leen dencal yowmal dara mënul mel ni moom waaye wa akbaru tafdilan fa la ngëneel it gën a yaatoo fa la ngëneel gën a baaxee nee la ma leen dencal yowmal qiyam ay xéewal la leen dencal ci ay ngëneel nee ci ci àllaaxira la gën a màggee yàlla leen di kon ginnaaw loolu am na laata jaal bul jàppe bul def ma allahi ànd ak yàlla ilaahan beneen yàlla aaxar beneen yàlla ni yàlla yàlla la di kii yàlla la déedéet nee na bu ko def soo ko defee nag boo jëyee leneen di ko bokkaaleeg yàlla jàppe loolu yàlla nee boo ko defee de fa taqooda di nga mujj a toog mujje fan mazmuuman di ku ñu ŋàññ toroxal ko bu baax waaye max maxzulan di ku ñu detteel te kenn du man ci yow dara waaw nee na ku ñu gàcceel ngay doon ku ñu toroxal ngay doon ku dul am ndimbal ngay doon ku dul am ku la soutenir ngay doon bu fekkente ni jël nga yàlla def ko ku ñu war a bokkaaleeg leneen mbokki jullit yi seen tafsiru Qur'an jeexul waaye yegg nañu ci aaya bi ñuy war a yëkkatee jotaay bi borom bi subhanahu wa taala ndax waxtu wi ñu amoon moo ñu tàggu waaye daal nañu bàyyi xel ñaari ay yi mu mujj wax gis nga li nit lu mu am yéene ko ko te xam ne yàlla la loo ñàkkit muñ ko te xam ne yàlla la ku baax it ñaanal mel ni moom ku bon ñaanal yàlla mu dindi ko ci mborom boobu yooyu yëpp suñu mbiru borom la waaye nag yàlla nii la nag bul bokkaale ak yàlla gis nga yàlla lu mu wax rek tëjee ko bañ bu leen bokkaale mu ne bu leen bokkaaleeg yàlla bu leen utal yàlla beneen yàlla bu ngeen naan kii mooy yàlla ndax su ngeen ko defee daal di ngeen mujj doon ñoo xamante ni ñu ñuy ŋàññ lañ ngeen di doon ñu ñuy yedd ñu ñuy toroxal ca yowmal qiyaam ñëpp taxaw ñu lay yedd ba pare toroxal la detteel nga doye di torox ba pare ñu jël la dugal safara bokkaaleeg yàlla da koy yóbbee yàlla nañ ci yàlla musal tabarakallahu ñu ziyaar nag imam yépp ay ma yépp ñaanal leen ci bis bu màgg bii di yawmul jumaa lépp lu ñu fi ñaan yàlla ko yàlla nangu ku ñu jiite yàlla la yàlla nangul sa julli waaye xutba yi ñuy def yàlla na ko jullit yëpp àndandoo jëriñoo ci barke alquran kenn ziyaare mbokki yépp nag macha allah ci ajjuma ji di leen fàttali nag ni yawmul jumaa bis bu màgg la bis bu am solo bu ñu fàttee jaamu yàlla ji waaye bu ñu fàtte ginnaaw bu ñu jullee suñu ajjuma ji ab takkusaan bu ñu fàtte jàng saar bu am solo boobu di suratul kahfi nga xam ne incha allahu suñu jeexalee saar bii ñu nekk di suratul isra moom lañ ciy teg yàlla nañ ci dugg ak jàmm ak salaam barke alquranul karim bu ko kenn fàttee jàng ay ngëneelam ak i njariñam kenn mënu ko natt kenn mënu ko xayma allahuma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal wa jaalna min arrachidin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu